asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ngi leen di nuyu. te di leen baalu gannaaw bi ñu leen baalee àq ba noppi. tey ñaan yàlla mu dolli ñoo defal ak njëggalam. ñoo defal ak njëggalam. ci barkeb sëriñ sëriñ bi. gannaaw bu loolu wéyee ñoo leen di dénk ñoo ngi leen di dénk leen baaxoo dénk liñ baaxoo dénk te mooy li sëriñ bi daan dénk mag te mooy la sëriñ bi daan dénk mag ña ñu gën a góorgóorlu yàlla yi mooy ñi gën a góorgóorlu bu baax ci ndigalu yàlla yi te dollee wattandiku mbooleem tere yàlla yi te dollee wattandiku mbooleem tere yàlla yi te ngeen xam ne xemmeenteefi àdduna ak yu te ngeen xam ne xemmeenteefi àdduna ak yu àllaaxira lépp lépp. sunu borom ko def ci ndigalam yi. sunu borom mi ngi ko def ci ndigalam yi. ba loolu tax na képp ku nekk ci ndigalam yi. ba loolu tax na képp ku nekk ci ndigalam yi. la la gënal te nga bëgg ko rek. la la gënal bëgg ko rek. moom ngay dajeel tey ak ëllëg. moom tey ak ëllëg. na xam ni. na ngeen xam ni. loru àdduna yi ak yu alaaxira yi. àdduna yi ak yu alaaxira yi. ak mbooleem yu ak mbooleem yu ñuy muslu. mi si biir tere yàlla yi. mi ngi si biir tere yàlla yi. waxtu jaam bi bàyyee mbooleem yàlla tere lépp. waxtu jaam bi bàyyee mbooleem lépp lu yàlla tere. lum gis lum ragalit. lum gis lum gis ci lum ragalit. lum gis ci lum ci lum ragalit. taxu ko jóg. dana sa mucc. dana sa mucc. kon na ngeen xam ni jëfe ndigal. ak bàyyi ay tere. ku raw si nga ku raw si nga rawee. ku jot say mébét sa ko jotee. ku jot say mébét ci nga ko jotee. ku am lam bëgg it sa la ko amee. ku am lam bëgg it ca la ko amee. képp ku sàggane ndigal yi nag. képp ku sàggane ndigal yi nag. ak kum man di doon. ak kum man di doon. lum gis te bëgg ko. lum gis te bëgg ko. bu meloon ni daa dugg loxoom it. bu meloon ni daa dugg loxoom it. du fa yàgg. du yàgg. ndax taxu koo jóg. ndax taxu koo jóg. képp ku sàggane tere yi. képp ku sàggane téere yi. ba di sa tàbbi. ba di sa tàbbi. ak kookee kum man di doon. ak kookee kum man di doon. la koy lor lum ko sori sori. la koy lor lum ko sori sori. bu yaboo mu waajal ko te xam moom la jëm. bu yaboo mu waajal ko mu xam ni ci moom la jëm. na ngeen sax ci ak njub. na ngeen sax ci ak njub. ndax mooy njiglaayu àdduna. ndax mooy njiglaayu àdduna. mooy sunu njiglaay ci àdduna. mooy mooy sunu njiglaay ci àdduna mooy sunu njiglaay ci àlaaxira mooy sunu njiglaay ci àlaaxira ak jubadi nag ak jubadi nag jigul kenn jigul kenn tey ak ëllëg tey képp koo gis mu nekk sa képp koo gis mu nekk sa di wax ni wàññiwu ma dara di wax ni wàññiwu ma dara na la wóor ni dasaa na la wóor ni dasaa yàggut waaye bu sa yàggee rek waaye bu sa yàggee rek gis ko wàññi lum ko wàññi ak njubit ak njubit képp ko gis mu nekk sax képp koo gis mu nekk sa naan jëriñu ma dara naan jëriñu ma dara ndax tey la gën a sonn ndax tey laa gën a sonn tey la samay nattu gën a bari tey la samay nattu gën a bari na ko wóor ni daa yàggagut sa njub ga na ko wóor ni daa yàggagut ca njub waaye ku sa yàgg waaye ko sa yàgg gis lum jariñ gis lu lay jariñ gis lum la jariñ gisal gis la jariñ sëriñ bi nee na waxtu wu nit ki nekkee ci lu baax sëriñ bi nee na waxtu wu nit nekkee ci lu baax lu baax loolee du xëy wuy si ko lu baax loole du xëy wuy si ko day woo ay mbokkam ban bari day woo ay mbokkam ban bari ñu ñëw xëpp si kawam ñu ñëw xëpp si kawam defar tayam ak ëllëgam defar tayam ak ëllëgam kon lu baax kon lu baax ñàkkute jik kenn ñàkkut a jig kenn. waaye ku sa yàgg ku sa yàggut la wax. waaye ku sa yàgg ak ku sa yàggut la ñuy wax. nee na waxtu wu nit ki nekkee cib safaan. nee na waxtu wu nit nekkee cib safaan. naan safaan bi wàññiwu ma dara. naan safaan bi wàññiwu ma dara. nee na safaan doo sa ne rek mu xëy wuy si la. nee safaan doo sa nekk rek mu ñëw wuy si la. day woo ay mbokkam. day woo ay mbokkam. dajale leen ban bari. dajale leen ban bari. mu ànd ak ñoom. mu ànd ak ñoom. xëpp fi ñëw xëpp fi yow. yàq sa tey yàq sa ëllëg. yàq sa tey yàq sa ëllëg. kon ku nekk si lu baax. kon képp ku nekk si lu baax. soo delloo. soo delloo. ngay góor ngay jigéen. ngay góor ngay jigéen. na ko gën a jàpp. na ko gën a jàpp. te gën saa farlu. te gën saa gën saa dogu. te gën saa dogu. te xam ne la nga bëgg lépp nga sa loolee. nga xam ne la nga bëgg lépp ma sa loolee. képp nekk ci ab safaan. képp ku nekk ci safaan. ngay góor ngay jigéen. soo delloo na nga gaaw tuub nekk ga sa nekkoon. soo delloo na gaaw tuub nekk ga nga nekkoon. soo delloo na nga gaaw tuub nekk ga soo delloo na gaaw tuub nekk ga sa nekkoon. ndax la lay lor tey ak ëllëg nga sa. ndax la lay lor tey ak ëllëg manca te boo yeexee ba mu fekk si la boo tuubee dootu la jariñ. te boo yeexee ba mu fekk si la boo tuubee du la jariñ. ñoo ngi leen di dénk suñu delloo nañu wattandiku am fo. sëriñ bi nee na mi ngi leen dénk bu ngeen demee ngeen gën a wat ndiku am fo afa xasibtumu annama xalaqnaakum xabasan na annakum ilayna laa turjaxuuna afa xasibtumu annama xabasa wa annakum ilayna laa turjaxuun sunu borom indi fi ngir am fo ak borom indi fi ngir am fo ak i caaxaan képp ku si nekk ba jort ni képp ku si nekk it ba jort bis du jot ba nga taseeg sa borom. bis du jot ba nga taseeg sa borom. loolee nga jortu safaan baay am. loolee nga baay am. bis dina jot mu teewal la. bis dana jot mu teewal la. xool noo defe woon ak lam bëggoon ak lam bañoon. xool noo defe woon ak lam bëggoon ak lam bañoon. am foo sa lam bañoon la. am fo ca lam bañoon la. te bu ko fekkee ci sa ndab. te bu ko fekkee ci sa ndab. sab àtte mën naa diis. sab àtte mën naa diis. te sag mujj it mën naa ñaaw. wala xiyaasu billahi jaamu yàlla jaamu yàlla ku ko def ku ko def moom la ko fi yàlla indee moom la ko yàlla indee ku ko deful ku ko deful moom la ko fi yàlla moom la ko yàlla indee te ka ko def te ka ko def ak ka ko deful it ak ka ko defu it bis dina jot ñu kanam fa kanamu yàlla bis dana jot ñu tase fa kanamu yàlla ka ko doon jaamu ka ko doon jaamu lu mu fa bëgg am ko fa lu mu fa bëgg am ko fa ka ko bëgg folol wur wóor ko mënu koo ñàkk kaka fa defutoon mu bëgg mu bëgg fa loo xamante ne wóor na ni ko mënu koo ñàkk. te du ko fa am te du ko fa am. kon nañuy bàyyi xel bis boobu. kon nañuy bàyyi xel bis boobu. nañuy yéenante jàmm. nañuy yéenante jàmm. te di ko bëggalante. te di ko bëggalante. di ko fexelante. te di ko fexelante. tey wattandiku ak rëy. tey wattandiku ak rëy. tey wattandiku ak naw suñu bopp. tey wattandiku ak naw suñu bopp. tey wattandiku ngistal. tey wattandiku ngistal. tey wattandiku bëgg daraja. tey wattandiku bëgg daraja. tey wattandiku ak iñaan. tey wattandiku ak iñaan. tey wattandiku wax lu dëgg. tey wattandiku wax lu dul dëgg. ndax yooyu yëpp. ndax yooyu yëpp. melo yoo xam ni. melo yoo xam ni. day xëcc nit jëme ko si safaanub aljana. day xëcc nit jëm ko si safaanub aljana. jëme ko si safaanub aljana. jë jëme ko si safaanam aljana. te nit ki lu koy xëcc jëme ko safaanam aljana rek war na koo daw. te nit ki lépp lu koy xëcc di ko jëme ci safaanam aljana war na koo daw. nañu taqoog gëm yàlla. nañu taqoog gëm yàlla. gu sell. gu sell. ci biir ak ci biti. ci biir ak ci ndax day fekk yooyu. ndax day fekk yooyu. ndax nit ki bu gëmee yàlla dëgg. ndax nit ki bu gëmee yàlla dëgg. du wax lu may dëgg. du wax lu may dëgg. du def lu may dëgg. du def lu may dëgg. du bëgg lu may ak dëgg. du bëgg lu may ak dëgg. du nekk si lu may ak dëgg. du nekk si lu may ak dëgg. te iñaan dina ko sori. te iñaan dina ko sori. ndax ngëm gaay tax. ndax ngëm gaay tax. soxor dina ko sori. soxor dina ko sori. ndax ngëm gaay tax. ndax ngëm gaay tax. bëgg daraja dina ko sori. bëgg daraja dina ko sori. ndax ngëm gaay tax. ndax ngëm gaay tax. yëg sa bopp dina ko sori. yëg sa bopp dina ko sori. ndax ngëm gaay tax. ndax ngëm gaay tax. waaye nag. waaye nag. yëg sa bopp lool. yëg sa bopp lool. bëgg daraja lool. bëgg daraja lool. ba lislaam ak la ni mel. ba lislaam ak lu ni mel. soxla woo sa lenn. sa lenn. te nag sa jëmi bopp. te nag sa jëmi bopp. jaral la lool. jaral lool. moo raw li ci biir. moo raw ak li ci biir. ak deltu ginnaaw la. ak deltu ginnaaw la. ak xel mu manqué. ak xel mu manqué. ak ñàkk xam yàlla. ak ñàkk xam yàlla. ñoo ngi leen di dénk it. sëriñ bi nee na mi ngi leen di dénk it. alquran. alquran. ajjuma ju ne. ajjuma ju nekk. dibéer bu ne. dibéer bu nekk. ñoo ngi koy baamu. ñoo ngi koy baamu. ñoo ngi leen dénk ngeen fonk ko di ko jàng. sëriñ bi nee na mi ngi leen di dénk ngeen fonk ko te di ko jàng. te di ko jéem a jëfee. te di ko jéem a jëfee. xëy na jëfe lépp sax. xëy na jëfe lépp sax. ña ko suñu borom jagleel bëriwul. ña ko suñu borom jagleel bariwul waaye ku nekk am nga loo man. waaye ku nekk am nga loo man. nga sa man ci jëfe. loole nga sa man ci jëfe. nga di ko jëfe rek. nga di ko jëfe rek. te lam tere nga koy wattandiku. ta lam tere nga di ko wattandiku. xasida yi sëriñ bi. xasida yi sëriñ bi ñoo ngi koy dénk sëriñ bi nee na leen koy dénk ngeen di ko jàng ngeen di ko jàng te di ko jëfe te di ko jëfee salaatu ala nabi salaatu ala ñoo ngi leen koy dénk sëriñ bi nee na mi ngi leen koy dénk ngeen fonk ko ngeen fonk ko seen kem kàttan seen kem kàttan listixfaar listixfaar ak ngeen si man ak gépp góolañ ci man tëggin yi bari na tëggiin yi bari na. waaye lépp sa yàlla la jëm. waaye lépp sa yàlla la jëm. sib jaam la jóge. sib jaam la jóge. boo si def tamit dëgg rek yàlla mën na laa jéggal. boo si def tamit dëgg rek yàlla mën na laa jéggal. subhaanallahi. wa bi hamdihi ñu ngi leen koy fonkloo sëriñ bi nee na mi ngi leen koy fonkloo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi leen koy sant na ngeen ko fonk mi leen koy sant mi ngi leen koy fonkloo ndax yooyu ma leen wax benn bu ci nekk ndax yooyu yi mu wax benn bu ci nekk caabi la joo xam ne caabi ja caabi la caabi la joo xam ne am na àjjana ju muy ubbi am na àjjana gu muy ubbi am na sawara wu muy tëjit am na sawara wu muy tëjit moo gën toog di waxi caaxaan moo gën toog di waxi caaxaan di waxuk neen di waxuk neen di wax loo sa yoon néewul di wax lu sa yoon néewut tamuy lor te yàq tamuy lor tey yàq yooyu na ngeen ko fonkaat yooyu na ko fonkaat seen kem kàttan seen kem kàttan ñu ngi leen di dénk ñu sëriñ bi nee na mi ngi leen dénk ngeen gën a bëggante ngir jëmmi yàlla ngir jëmmi yàlla soppante soppante ngir jëmmi yàlla ngir jëmmi yàlla wóolante wóolante ngir jëmmi yàlla ngir jëmmi yàlla tey dimbalante it tey dimbalante it te jëmmi yàlla rek waral ko te jëmmi yàlla rek waral ko yàlla ñu yàlla doolee defal ndimbal yàlla nañu yàlla doolee defal ndimbal sëriñ bi téel ñu sunu taalibe sëriñ bi téel ñu sunu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa wa rahmatullahi